kéemaan këram na waar kéemaan ku ci kéemaan Alioune Mbaye seen bi ku ci kéemaan ah te mooy saay saay te mooy bokku néegu seen bi ñu xit seen mbay ñaku def lu la seen mu quartier bébé ay chargéri gay nee la soxnas Alioune Mbaye kéemaan ku ci kéemaan naa leen ba yegg seen mi ko si yow benn kër ñaari sëriñ sëriñ kéemaan bëri xam-xam jàng ba ne ardoon ko ci maam waaye ñànku ak ñoo xit ñoom sëñ bay la ñu àndal xamul dara teg di lëmën e eh, dëkke nangu ki naa sëñ bi waaye semu seen gardien bi du leen may dara foo ko fekk moom mi ngi toog ci buntu kër gi ah waaw ça va. ngi ci jàmm. waaw yoo def yow. maa ngi yaa ngi cool. maa ngi sant. waaw waaw. Eh, ñaaw. ana kii sëñ bi. sëñ bi ba jàmm. jàmm ñaaw ah sëñ bi nag war na maa gaaw teg loxo nag de ah. bu bu duggee waxaale kaay ne ko ñànku nee na nga teg nga teg fi mu ne affaire bi affaire mu ngi tubay kaboy bi xam kaboy. tubéy tubéy tubéy li tubéy kabay la kabay. waaw waxal waxal waaw waaw demal. ma def waaye nañ di saa leeral xar nga hmm. ah? yi ñoo ko jaay noonu. dafa leew moom moom moom tubéy bu la ko jaay du du du xool du xool euh, ndax ginnaaw ko xotti wuñ am mu jaay ko noonu nga di nga dem di ko jënd yow tamit daf lay a dee. bu mu xotee ko nekk ñaa ngi ko neen bu ma ko waxal waaw demal demal. waaw waaw ñëw dawal waaw dawal waaw waaw booy waaw ah waaw booy lakkaay ji nañ ah e waaw booy dinañu mooy lii rek salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi maa ngi nii rek ci loo nekk ça va yaa ngi am jàmm ça va nii fii <laughs> moom garaaw na di ci buntu bi moom bon xanaa ñànku la. waaw ku wérul. waaw ku wérul. ah maa sonal la. noonu lay demee kay mu kañ sonal na ma. ii masa masa wérul. Ya. ci laa ne di fañ ñii daanaka sax finition ci des. ah <laughs> <laughs> kon war naa gaaw war naa gaaw faju war naa gaaw faju lii baaxul. mais ci loo nekk yaa ngi ci jàmm ça va. depuis boobu ah waaw depuis boobu kañ kéemaan wax dëgg fa yàlla. déedéet nga baal ma soxna si. noo ko wooyee sëñ wa sëñ kéemaan waaw. kii ah, buy wax man yow ya, loo ci duggee. Ya. <laughs> sëñ naa li yow yaa ko wax loolu. Ah, daal waxin la xëy na daa juum rek. kii xanaa ki mooy Aline Mbaye jëkkëru kii bi Ndeye Sarr. waaw voilà yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi gën a leeral mbir yi ngay wax jëkkëru soxna Ndeye la moom la moom mooy borom këram man mii di wax ak yow man maay Serigne Modou borom Kéemaan. yow loo may lumtu toon nii ah déedéet bëgguma déglu it nga yaay ma. soxna si yéen da ngeen a war a yeew am fulla ak fayda nit ki bul jëflanteeg moom te xamoo ko ki ngay jëflante da ngaa war xam moom mooy kan te naa leen lii trop c'est trop man na la pardonné lepp ba mu des loolu ba leen tur jàmbur yi ngeen di utiliser diko ko di ci def ay tojaange lolu baxul lolu baxul de man gis na sax ba ci réseaux sociaux yi ko xam ne day commentaire ne mom moy borom kéman bind ci numéro téléphone am té yoy bu amé après sama tur lañuy yobbu lu ci mara xew ëlëk man lañuy wax té man yalla daf ma dimbalé ma doon Abdul Fakir doonub jam di ak nit ñi ci sutura di ak nit ñi si dimbalanté ak ñom mais su fekkee kii tey ku mel nii dafa yóbbu sama tur def ci aw tajaange ku ñuy wax du man lépp mën naa la koo pardonné ak fi ñu jaar yëpp maag yow chaque jour gis nga chaque jour gis nga dem yee lay doon saa yoo waxee xale yi taxaw ma suturaal la dem sama yoon mais lii moom bu mu amati lii moom bugguma ko moom na leer si say nopp bopp bu nar a am barke nag ay nopp yu déggatee sax. cinquièmement dogguma la sax yàlla bu la yàlla. nee naa bu ci wax yow mën nga xam. ka ah ma lu may wax ak yow. Ah! naka jekk bi ma ñëwee gis sa jëmm ji. sama fit bi sax daa dem ndax man jëmm jañ ma waxoon ak jëmm ji bokk eh, eh, eh, jinne ma saa wax naa la ko jinne yi lan jinne yi lan gis nga foo fekk def kat day amul lay sëñ bi waxuma ak yow way ba yàlla def na ni moom comme gis naa la alhamdulilahi rabbil alamin defe naa dinaa ñëwaat ci yow yàlla baax na boo fi ñëwaat tamit nga bàyyi xel sa colko gi nga sol ndax kilifa boo koy seeti da war a yiw kenn raw leen yéen tamit dëgg ak jamono nit lu ko neex sol yaa ko def yaay dem ñi nga xamante ne mettil diine ji. ana ndeela ndeela. nañ ci kaw. te bu doon nag li nga xat ak sama soxna naa la ba ko. doo ko def tuus nag. Ah. waaw yow bu ñu amoon ku ñu waroon def dara yow la war a doon. yow mii mu boo turu jàmbur yi di ci def ay tojaange. yow moom yaa ngi nii rek toroxal maa la tax a jóg yow. yow moom amoo benn suwaa ci man moo tax doo suwaa si sama dara. yow xam nga lu yoon bi wax ci kàcc. ku leen damaa kàcc kàcc gu nu moderniser kay. daan ñoom ñoo bëgg ku leen nax. lan la tey belli woo de kañ nga naan du génne sama kër gi lan lay belli yow sa kër gi dafay xew léegi ndaa gis na ko yow xam nga kër gi amul lu du jàmb ak ambiance bu bari ak bruit gu bari ñii duñu bëgg a ay tëgg lan la yow sa kër gi li fi nekk moo bëri soo duggee dof bi dof bi nga njëkk a jàkkaarloo kon kooku man ma ci kër gi sax ñeme moom ñu ne dee tawaay yow noo mën a jëlee kii di sëy ak moom ak yow diñ gi ma la xamee woon nga bëgg sa bopp billi jonguma ba dee ne see kii. dañoo bàyyi jëkkër mais jëkkër la jëkkër la jëkkër ba ci doo ko wax dëgg mais kii war na maa def li ma def. xamoo lan yaa ko gën a xam xam nga ko dafoo jënd jàpp la yow kii nan la ma mën a waxee ne mooy kéemaan te nekkul kéemaan nga nangu ba dee di ko ci jàppale pour lan. xam nga man dèjà damaa ñëw fekk leen yéen ñaa ngeen di wax te xam nga ni kilifa la mënuma koo toroxal ci biir nit ñi il fallait que mu bàyyi ba nga dem soog a wax ak moom am na loo xamante ne yow yaa koy bañ sa bopp santal yàlla na ba mu dalee ci man man mi nekk sa xarit mais bu daloon ci keneen sa gàcce lay doon ndax da ngay room ñu naan xoolal jabaru bi bu mu la dalati daal waxal ak moom jeex ma fecc sa kanam gi baaram ko lii lan la gis nga yonent bi biñ ko laajee ndax jullit dana mooy def ne waaw mën naa topp bakkanam ndax jullit dana sàcc mu ne waaw ndax mën bëgg lu ko neex ndax jullit dana njaalu mu ne waaw mën naa seytaane mën man waaye bañ ne ndax julli dana fen xam nga lu moom daf ne laa almu'min laa kasibu julli nga fen fen da ngay déglu ma wax la wax gis nga fen année bi yëpp benn la ci yàlla di baale benn maanaam li nga fen li nga kàcc si at bi yëpp benn la la ci yàlla baal su fekkee la nga kàcc dafa bëri nag bu yeboo nga xam ne sa kaana bi dana fees moom moo ma jaawale man néew ma ko maa tudd Kéemaan moo ñëw ni ma Kéemaan sama modeste mayu ma ma naan ko déedéet ma ne ko waaw te Kéemaan kenn moomu ko man bu ma defee Kéemaan nga def Kéemaan ñu ñëpp Kéemaan lan yow mënoon ngaa modeste nangu Kéemaan si ñoom rek dara nekku kan mooy Kéemaan Junior Kéemaan ku ci Kéemaan Alioune Mbaye ak Sembé ku ci Kéemaan ah gay mooy saay saay te mooy bëggu ne ku Sembé ñoo xit seen mbay ñoo ko def buura c'est mon gardien bébé Aïcha chéri gay ne la soxnas Alioune Mbaye Kéemaan ku ci Kéemaan leen ba yegg seen yëngu si kéemaan yow xam-xam